hello sama guy. hello tout le monde it's your boy Malick Ndoye aka Jeune Job jàpp tey tey nag ma dalal ki nga xamante ne mooy Khalil Khalil bu Akatsuki tey moom laa dalal fas ko poser ay questions. yes sir ma nigga dama gis ci seen son bi ngeen xamante ne moom ngeen mujjee génne intitulé Flamme. Mm-hmm. Euh, dama gis ci fin bi ngeen def ci Akatsuki taxaw si ay montagnes xam nga lan la lan ngeen di waajal. ñu la boy yi immortel yi rab bu deewee ñoo ko dekki ricoté son yi pii ay mu wër ñu universel imposé diril gaal seen jox la fulu yu wéere di indaale gangu fuu yi teewal pii universal waxal samay crush aw ma temps du caga laaloof tëju atum lëmb di leen jobal ngan di album léegi si yow la dees na nga pare das sa mani dañuy game dañuy game bu tabax building dina flan ndaxte maa ngay Mr Mo Dash yàgg tëju néeg bi di try rek garder ay moo daas yàlla moo ñu taal bu dee ndox ni nga dooñu fay jóba sigil koono bi tekki tax na ñuy xëy jëloo ku ne su lu ñuy def duñu def comme ñoom sooy